maam bu sa jaara nuy ji na ay dëkkandoom nuy ji na njëkki jigéenam soxna Anta Njaay mbokkam taala Anta maam maaram auzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim sallallahu wa sallam ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa xadimihi wa man tabiahum islam amin mbokki euh, waa Sénégal ñuy seetaan te nekk ci biir réew mi ak ci bitim réew ñu leen di ziare bu baax ci bis bu màgg bi nga xam ne mooy lu màggalu Poroxaan màggalu Soxna Jaara di nuyu ñu ci biir réew mi ak ñu ci bitim réew ñëpp di leen bu baax a baax ci bis bi waaw bis bi bisu Soxna Jaara la. muy lenn ci di ko suñu borom faye muy bis bu nga xam ne ñëpp dañ cee daje ñëw indaale seen yéene ju rafet indi seeni xéewal ñëw fii saafonte kenn ku nekk sa morom daal di dellu ba at mi dellusiwaat ñu ñëwaat fi loolu yàgg na sëriñ euh, Basiru mi nga xam ne moom la sëriñ tuba euh, fee jox poroxaan ba ci sëriñ ba Bassirou mu nga xam ne moo ci taxaw taxawaay bu rafet bii nga xam ne moo fis ba léegi euh, sëriñ Mouhamadou Mountakha tey yokk ci lu bare bare bare ci taxawaay ak njaboot yëpp ba tey mu nekk sëriñ Touba tey ñëw ci dëkk bi loolu lépp euh, lu mat a fàttaliku lu mat a bàyyi xel la dañ ci jàng ne yàlla rek moo mat jaamu yàlla rek moo mat a gëm moo mat a jaamu ndax lépp loo def ci suñu boroom ci di ko jaamu dana la bis dana ñëw mu defal la loo xam ne ñëpp dañ ci teg seen bët te loolu fii la waaye fa ñu jëm mooy gën a xéewale loolu feeñ na ci kon tey màggal gi c'est spécial mooy màggal la goo xam ne Serigne Touba moo fi nekk tey fii ci Poroxaan mu doon lu bégal ñëpp te mu feeñ ci lool li ci dolliku nag ci xéwal yi mooy daara ji nga xam ne fi ngeen ñëw tey nii di liggéey boo nga xam ne dëgg dëgg nag mooy liggéey ba nga xam ne ku fi dugg ku nekk di nga xam ne rek lii moom mooy yelloo soxna jaara lii mooy yelloo dëkku soxna jaara muy kër soxna jaara ay njabootam a fi nekk njabootu soxna jaara yoo xam ne dafa mel ne mi ngi ci seen biir di leen gis di leen xool di leen jàngal di leen yar di leen toppatoo waaw loolu mooy li nga xam ne mooy baatin bi ah, mu doon loo xam ne lu am solo la ah, kenn ku teg tànk ku ne ci paraxaan di nga bëgg ñëw ci daara ji xool ko gis ko saafonte li nga am tamit nga indi ko fi. kenn ku ne fa sa man-man toll rek yaa ngi liggéey ngir daara ci ci biir réew mi ak ci bitim réew ci daayira yi ak ci ñi nga xam ne sax du ay daayira te loolu dafay wane ne kon liggéeyal yàlla rek moo am solo jaamu yàlla rek mooy li am solo feeñ na ci bu baax a baax ñuy sant sëriñ Mouhamadou Mountakha di ko ñaanal suñu boroom yàggal ko loo tey ñaan tam képp ku dégg sama kàddu gi nga ne sëriñ Mountakha Mouhamadou Mountakha yàlla na fi yàgg tëwér ak gi yëpp ak taalibe ba naal yi mën a àgg ba naalaat ma àggaat naal yi baree bari ci kanam ñu ànd ko ak moom gis ngeen euh, li ma daan wax di ko waxee toujours mooy bu ngeen ñëwee ci màggal gi daanaka jigéen ñi ñoo ëpp góor ñu lu bare bare kon jigéen ñi moom wax dëgg yàlla bëgg nañ lu baax xam nañ tam ki fi nekk mooy kan xam nañ ko bëgg nañ ko yi tamit di sàkku ci moom barke fi ñu toll Ah, li nga xam ne moom lañ leen di joxañ rek ngir ñu gën ci bàyyi xel mooy melokaan ba mu amoon ba mu am lii saa yu ñëwee nañ ci jël benn benn mel benn melokaan la sax benn jikko su ko defee daal ci dëgërlu ba déwén bu ñu dikkaate jëlati loolu su yàggee rek danañ am danañ am lu baax danañ mel melokaan woo xam ne wu ñu taamu la yàlla gërëm la ci seen biiri kër ci seen njaboot yi ñuy yar. ci seen i ci seen suñ borom mi leen bind te digal leen ñu jaamu ko jaamu yàlla rek jaamu yàlla gu rëy nag gu loo xam ne gu teel a teel la soxna jaar lii mu am tam loolu may na ko ko waaw jiital jaamu yàlla bu wér nag la def jaamu ko ci moom yàlla moom boromam ci ni mu sàkk ko ko ne jaamoo waaye tam ci biir jaamu gi tam boole na ci ne faaw tam ñu boole ci borom kër yi mu jaamu tam borom këram ci ni ko ko suñu borom digle jaamu ay dëkkandoom yar ak njabootam jàngal leen tàggat leen tàggat leen tàggat goo xam ne dara xewagut seen lépp làgg na ci eh, def lu baax seen lépp làgg na ci gëm yàlla ak topp yàlla ak jaamu yàlla. loolu nag moo ko may ginnaaw nag moo ko ko may te ñun ñii ay jigéen ñëpp kenn ku nekk foo mën a toll duma wax sax ay murit waxatuma murit léegi ñëpp lay wax. da ngay gis koo xam ne sax du nekk sax ab julit day bëgg jëm day bëgg maam jaara ndax xam na ne jigéen la te jigéen ju ju mag moo nekk fii jigéen ju mag moo am li mu am ni ko jigéen ñu mag ngi daan ama bu jëkk ci ci temps yonent bi alayhi salaatu moom lañu am fii ci Sénégal nañ ko xam bu baax a baax te dama leen di wax ne suñu borom mi daan joxe ba tey mi ngi fi li mu am moo ëpp te du jeex day dolli ko de waaye du jeex te soxla wu ci dara moo nañ ko wax bëggu ci ñun dara tamit du ñu di ko jaamu kon nañuy jéem a sàkk lu baax jigéen ñi ni ngeen li ngeen di def baax na lool bu joxe ñëwee ñu yéen a ciy gën a jàmbaare dañ koo seetlu bu baax tax ñu koy wax pëste bi yéen a ci gën a jàmbaar ñëw gi lu na ngeen di def ngir mën a ñëw Poroxaan andi seen i xéewal taxaw togg yekk joxe sonn lool ànd ceeg cofeel gu mat sëkk loolu moom noonu ngeen mel waaw li des nag mooy ngeen xam ne seen wàll tam mi ngi ci loolu seen wàll ci mooy ngeen xool ki ngeen di defal kan la ak li mu am lan la mën a euh, euh, ngeen ci mën a fexe ba for ci doo xam ne dana leen dimbale bu ëllëg si tamit ku leen gis rek xam ne yéen ñi am ngeen dimbal moo tax loolu lu ci am solo la kon fii ci daara ji ñi ngi accueillir daayira yi ak gan ñi ak ñi nga xam dañuy def defkati lu baax ñi indi ay ay hadaaya di ko jox euh, soxna jaara yi macha allah dara manqué wut waaw ñi ngi indi jumtukaay boo nga xam ne daara ji dana ko soxla am nañu ko fi indi ci ay daayira ak ci ay benn benn ñu fi indi ay tenue macha allah tenue yu am solo xale yi di sol rek fan yëpp ñu ngi solo ñu soloo rek ñoom ñëpp ñoo ànd sol ko bu ëllëgee ñu sol beneen kon ay soxnaa koy def ak ñoo xam ne duñu ay góor yàlla lañ ñu def ko wax dëgg yàlla nga xam ne xale bu nekk tey mun nañu wax ne xale bu nekk daanaka am nga juróom benn tenue yoo xam ne yow yaa ko moom juróom walla juróom benn te kenn ku ne da nga ci am bale ko yeneen yi nga xam ne moo ci war a ànd dara manqué wut ñi dil togg gi togg ci màggal gi ñii ngay dem di bale ji waaw ñii kenn ku nekk fa nga féete waaw macha allah loo tax loolu dañuy xam ne nekkuñu ci daara ji de jàngalewuñu waaye ñu bëgg lu baax lañ ñu bëgg nañ lu baax lool te fu lu baax nekk loolu lañ fa def loo ñu def ko waaw fu lu baax nekk ba xam ne lii lu baax la. dootu ñu ci amati sago loolu moo ci feeñ amatuñ ci sago ci liggéey bi waaye ñu ngi leen di sant bu baax ci loolu di ñaan suñu borom te mu nangu liggéey boobu fay leen ko fii ak fa ñu jëm te lu ñu mën ren rek yàlla mën déwén lu këpp am na ci ñu gën a ràññeeku ñoo xam ne xam nañ leen waaye nag bu tuddee dangay ngay juum te ki nga xam ne moo andi dërëm ak ki andi junni kenn ku ne la suñu borom gis na la ngay andi Serigne Touba gis na ko te dina la ko fay ki dërëm bi yéene woon na lu ëpp lool loolu loolu la ko suñu borom may kon loolee dana ci am pay andi la ci des ñi nga xam tam dañuy andi loo xam ne moo ëpp loolu yàlla na suñu borom gën leen a yokk tamit ñu gën a mën a andi lu loolu kon ku fi indi dara rek ku mën a doon rek sant nañ la gërëm nañ la xam ne ci alxuraan rek nga ko def nag waaw alxuraan ko def soxna jaara nga ko defal te doo ko rëccu te alxuraan mooy yàlla mooy yàllaa ko wàccee te ne bëgg nit ñi di ko bëgg ngay bëgg alxuraan bëgg ñu bëgg ñu am alxuraan ci la bokk waaye toog rek euh, defoo ci dara loolu baaxut moo tax wax dëgg yàlla yàgg na ëpp na ñetti semaine ñu ngi recevoir daanaka bis bu nekk day nekk màggal ci ñun ndax ku ñëw Poroxaan rek faw barab bi moom da moom da ji bëgg bu teg fi sa tànk ngir baax barkeelu ci alxuraan ci kon noonu la demee ñu ngi sant baax ak ñëpp di gërëm ñëpp kenn ku nekk ne mënoon laa tudd ci sa pës see faaye euh, tudd bi moom boo tàmbalee du mën a jeexati ndax kenn ku nekk xam nañ leen bu baax a baax ràññee nañ leen ci biir réew mi ak ci bitim réew waaye suñ boroom gis na ko Serigne Touba gis na ko kon ñu ngi delluwaat kàddu sant bu baax a baax yàlla nañ ko teewee nag ni déwén Serigne Touba. maam bu sa na ay dëkkandoom nuy ji na njëkki